instruction bi ñu président jox pour que ñu dem ci këru diine yëpp yi nekk ci département Thiès euh, ñëwoon fii donc pour wax leen euh, euh, président li muy xaar ci ñoom mais wax leen aussi président def leen a jàppale ci li nga xam ni ñu ngi koy waajal parce que xam na nañu ni ñu bare mbooloo yu ñëw ci ñoom donc yoon la président ñëw jàppale leen yoon la aussi pour que président wax leen. pour que ñu ñaanal Sénégal ñun euh, ñun aussi ñu sàkku ñaan ci ñoom pour que président de la république liggéey bi nga xam ni euh, donc waa Sénégal dénk nañu ko ko moo mën ko liggéey ci anam yu rafet dëkk bi mën a am jàmm loolu nag dañ ko def ànd ci ak responsable yi département bi yëpp donc loolu rek lañu fi amoon li ñuy wax ñu ngi leen di gërëm di leen sant.